dañuy gis ni léegi góor mën naa takk jabar andi ko ci këram jigéen ji nangu ko muñal nangu lépp ndax bàyyi sa kër papa bàyyi sa kër yaay ku ne xam na ne dafa metti nga ñëw nangul ko ko mais léeg-léeg comme ni nga ko waxee góor yi dañuy taxaw nga sëy bi du fi am du fi am waa ji bu nekkee góor bu nooy bopp ñu buux ko ci beneen sëy mu takk soit don, suuf lay doon wala mu nekk ak ndaw si légalement ñëpp xam ni kii jabaram la su ko defee ñuy métital kele góor boobu moom ban ate la war mën a am non non jigéen ji amul fulla day dellu ci la ma la waxoon demal ci sa bàyyi mi la maye ne ko manatuma manatuma gis nga góor gi dem takk jabari faj mer jabaru faj mer baaxul de sa yaay ki nga takk nee na la kaay nga takk sa doomu najaay baa sa doomu tànt dinaa la wax génn góor gu mag ku ñuy wax Seydil Haaji Malick nee na sëyu mbokk bu ko kenn tudd buñ ko tuddee nañu fexe ba mu am su amee nañu fexe ba mu sax nee buñ ko tuddee te amul mbokk ga yàqu dañ naan dañoo xeeb su amee te saxul sëy ba tas mbokk ga tas ndax ko wacc njabootam mu wacc la léegi dañ naan takkal sa mbokk yow am na bu gën a dee kii di ànd yow amul dara yaa koy jëndal cigarette yaa koy jëndal dàll yaa koy jëndal ay carax yaa koy wutal kap mu sol yaa koy may jiin ba mu xëy dem bitim réew yàlla ubbil ko buntu wërsëg yaayam ne ko takkal keneen gis nga boo dee day roñ alal jeg doom yi alal alalu sëy mooy fa yàlla ba jur fa ilimaan jur fa nit ku baax jur fa nit ku yiw jur fa jaamukatu yàlla jur boroom xaalis du njureel Sénégal li ñu jàppee tekki mooy xaalis xaalis du tekki ku jur ku juboog yàlla tekki na ku jur noonu yàlla tekki sa yoo dara waaye jur ku jaamukatu yàlla loolu mooy sëy bu barkeel jur noonu yàlla mooy sëy bu barkeelu yow na takk nga d'accord nañ dem nañ ba ci biir ñuy bundu xataan sa jabar ne ko coppat ut foo ko luye dagan na dara newu ci mu dëkk fa nga dëkk fa sa yaay la ko war nga di ko fekk di ko defal jeex na sa jabar am jàmm sa yaay am jàmm waaye wàcc ko ngeen yaay kaay kat àndoon ngeen ci te duma ko téye ba heure bi ay bokkam duñ ma gën a gore yaay nag moom wëcc nga moom yoon sant ma ko donte sant nga ma ko yoon sant ma lool li war ci yow nag dinaa ko def ginnaaw bëggoo mu ne ci kër gi naa la uutal ko xale bu fi ne ma di ko fay mu di la toppatoo mais suma jabar bàyyi ko mu ne ci jàmm parce que ay bokkam dañ dañ ma ko jox fekk muy xale bu tuuti ñu jébbal ma ko xamul ku dul man xaw ma ku moom ma xëy ne ko yàllax kon lama ko xañ lu may lu may def ak yàlla boo léegi il faut nga jël say responsabilité ci nga nekk kuy takk jabar ti dëgëroo say boo nga muñ yoom ñaar la ñàkk jom yoom la ak awra ju lànk ñaari yoom yooyu fi yolom jom dafa am ak yolom awra yolom jom mooy yow ko fuñ la diri nga dem waccal nga wacc mereel nga mere pour lan man maa la takk ngay gor maag may gor ñu signé dinaa fexe ba lay yàqu du jógee ci man góor gi ndaw si ne fexe ba du yàqoo ci man ngeen boole seen couple arrosé ko ak mbëggeel ba mu dëgër bu leen ci dugal kenn alors sas ñi gis ni tamit euh, goro yi ñu ci ëpp parfois du ñëpp nag mais ñenn ñi dañuy dañuy commerce ci seen ay doom da ngay gis koo xam ne par exemple takk na jabar tey yaay ji d'accordul ndax nee na jabar ji bëggul mu takk kii keneen la bëgg mu takk ko sëy bi di dem muy gën a métti ñoom ñaar ñu dëkk ñu dem ba waaji ji luweel jabaram séparé ko ak yaay ji yaay jàpp ni doom jabar jee ko séparé ak doomam su ko defee njëkk yi tamit dugg ci ñoom it fexe ba proposer par exemple waa ji may ko keneen léegi ndaw si toog ne moom dafa gore dafa bëgg sëy yàlla rek tax bañ a jug ci sëy bi lépp luy méttital mu nangu ko muñ waa ji xamul mënul juste mënul yor mënul yor mënul yor ñaar ba pare bëgg bëgg a yaayam parce que yaay jee ko buux kikam kim ko mujjee may muy ñaareelam léegi moom amul équilibre déjà ci sëyam kooku ndaw ndaw si toog ni day muñ parce que sëy rek moo tax muy mu sëy moo ko fa dugal te am na ci njaboot mënatul dem mënatul dellu gannaaw kee toog tamit di ko bundu xatal même bu fekkee bokkuñu kër goro yi di ji goro bi di commerce rakk ji di commerce ñoom kër googu nu. ça va sant yàlla gën naa ndaw si moom. nangu naa muñ yonent yàlla ayóoba dafa amone ay soxna yalla tekkon ko tu febar bari won ala lol mu ñak jurgi ñak xopari ñak yi ñàkk yaram jabar yep ñew ñaan baat gis nga bala ngaa xam ku la bëgg da ngay dem ba ken soxlaatu la ngay xamé ki la bëgg su nexé ken du xam bëggel métti métti la ñuy xam mbëggeel ak xarit su neexee doo xam xarit ndax ñëpp lay fittasu ñëpp lay jox ñaari loxo ñëppay bëgg a ànd ak yow soo demee ba yorotoo dara nag koo geesu gis ko rek teel xaritam bu ne la bëgg naa la gëm ko ñëpp ñaan baat benn jigéen moo ñaanul baat mu ngi tudd Rahmatu góor gu ñuy wax Afrayim moo ko jur Afrayim yunti yàlla Yuusufa ko jur te Yuusufa moom lañ sànni woon ca teen ba génne ko jaay ko ca marché Misra Azizu Misra jënd ko ministre bi yóbbu ko këram jabaram di ko sàkku mu génnee ci kër ga ñu tëj ko kaso kon moom sëtu nattu la kii daw daaw nattu am na jigéen ñu du daw ci waa kër waalo mbooji lañ bokk sëy bu métti jarul daw fekk yaa ngi dund parce que doom yee tax gis nga boo nekkee ci lu métti sëñ bi euh, ba say doom màgg foo jaar jooy xam nga looy jooyal dañuy xëy papa yaay enveloppe bi yaa ko moom bi màkk la kayit gi kayitu kër la oto bi yaa ko moom papa yaa moom bi sa yaay bu téye bosam ronkoñam yi mooy tooyal xaalis bi li mu daj ci sa baay ak li ko sa baay teg nga ñëw tey seddal xolom kon résultat wu sëy baag muñ nga moo nekk nii looloo jooyloo yaa important boo ko mënee supporter mais du ndam ci jigéen ñu jox la ko jëla sa responsabilité bul takk ñaareelu faj mer non man Iran ku ma ko def ma lànk suma yaay boo takkee jabar indi ko këram danaan la nga fi ñëw nga ne yaay liggéey mu ne ànd leen génn ca biti jigéen fa jëkkëram ne falay ne aca benn jabaru doomam du nekk këram do tak doomu jambur di ko tumuraankel yobul fa nga ne baa budé man nga di ñew acca soko ko acca jigen ju bari fulal doomi doom seeni nga ak ñom mais yow noy sa sa jabar sa doom tak jabar ngeen ndaw si neexu la nga bundu xataan ndaw si xatal ndaw si ba takal jëkërem benen jabar góor gi ñàkk fayda gérer jabar boobu mais kooku ci ñàkk fayda la bokk loolu di nga sëy du àq njureel wan ko ni ko yaay lool mënul nekk yaa ma jur mais bi boo baaxul sariya santuma lool gis nga boo loree jigéen lépp loo ko lor bala ngaa dee danga ko jigéen kenn du ko toroxal ti gisuloo ko bari na ñoo fi xamoon ñu yàqule te amoon nañ départ lool ñu am seen jabar muy sonn ak ñoom di leen defal lu ne ñu xëy takk keneen ku yor xaalis ba seen yaay dugal leen ci ko am xaalis ñoom ñépp ñu gurguri ànd ak am xaalis wan gannaaw kii mu takkoon su defee lii nga wax toog muñ te wan yàlla ne ko li ma sant maa ngi wa inna rabbaka labil mirsad lépp ci moom lay mucc doom yi yor kër gi moo koy jur doom yi dimbali nit ñi moo leen jur kii lu mu jur kii mooy doon sangam mu ñuy yombul rek waaye boo mu ñuy lépp ay baax muñ moo yombul mais lii nga wax jigéen ju ko àttan man ngaa jur sang maam jaara bu sa daj na lu ne du méttitalu maam Mor Anta de maam Mor Anta méttitalu ñoom xamuñu méttital jigéen ñoom ñoo doon méttital seen bopp ngir bëgg jur sang dagan na jigéen sañ na ko waaye góor takk la indi la fitnaal la jaaduwul te al fitnatu ashad min al qatli yàlla nee na am na ku ne ci kër la muy dund dee ko tane fuuf am na fitna coono yoo xam ne dee ko dàq dee ko dàq fuuf boo dee noppalu nga mais yenn coono yi baax surtout nag boo dawee ñëw sa papa mu ba ma xàll ci demal nga toog muñ demal nga toog muñ mais bu njëkk buñ lay muñ loo dañ lay dimbale papa di la yor jox sa càmmiñ di la fekk di la jox ñu di la dooleel ba nga xam ne doo am problème mais demal muñ joo xam ne jëkkër matlewul bàyyi muñ loowu a dara joxu la tus sa càmmiñ fekkul a fa sa ndey joxu a dara ci ñu nga muñ toogal ti gisoob siis fooy toog it boo koy muñ loo danga ko naan teel ci lii muñee ko teel ci lii góorgóorlu dina baax incha allah sa baay duma la dugal ci lu lay lor te jamono dina ñëw nga ne baay ko da dalal xelu doom mais lay dalal amul wàccel ki yoratul dara yow yow kii nga xam yaa ko takk yor ndeyam yoraale ko yor ay bokkam te nga koo bàyyi ci commerçante bi ki yor na xayti nob na bis bu ne mu ngi fii ñëw man daf may teral fukki ñaar fukki du du kii du maire bu ñuy roy de kii maire bu garaaw a ngi nii kii du war na lee xale bu jigéen bi ma fi gis fu mu dëkk borom oto bi. ne ko yaay kii dañuy bëggante mu ne tegal wax ji ci suuf nooy def kii ci kër gi nooy def kii ci kër gi bu ma ko déggati te na fi yem te bu ma fi gisati teel doomu jàmbur ji nga woon loo ko terale way booba la kilifa bu baax am luy oto sa baay bi may sëyeeg moom daa am saret ci laa leen jur yéen ñëpp teraanga yëpp ci laa nga naan ngay bàyyi sa jabar di topp kii pour la téel ma sa jabar ji bu ma fi gisati kii tàng moo gisee naa ko toroxal ne nga dem gis ko ne ko maire bi daal nee na li ma naroon moom ma ko yàq te booba loolu wuy jur wax nga def ko nga ñëw téye sa jabar ba yàlla def li muy def booba daan nga bëgg a jabar sa jabar may la xaalis baa mu jël seenam jox la dimbalee la ko parce que xam na ni def nga li la war satisfaire nga ko ci borom jom soo takkee keneen indi ko du ñàkk dara ci cëram moo tax mu daan nangu léegi góor bu takkee jabar ñaareel awo ba deena su takkee ñetteel awo ñaareel torox nañu su takkee ñeenteel awo ñaareel ñetteel yëlwaani nañu. ci point boobu sax laay bëgg laay bëgg ñu taxaw si parce que dañuy gis ni léegi kër yombul ñu ci ëpp léegi ci góor ñi dañuy loué léegi euh, te nee nañu bala ngay takk jabar il faut nga le juróomi ponk yi léegi juróomi ponk yooyu ku góor ki mat ko mi ngi loué la mu yoree jabaram joru ko des na mu xëy xëy takk takk suuf téye ko kër yaayam ba di yooti ñetteel. ndaw see bañ man maay bañ boo gisee yàlla nena na waree fi jiitu avancé lii la doon bañ dugub ba ci biir doo xam li xew xamal li xew bala ngaa dugg xam nga avant ngay ñëw xam nga ni Iran ngi fi mais laajtoo Iran fi ba ne déedéet ak sa oto matériel ñu la Iran ñëwul nga wàññeekoo ak neen non non ndax ñëw naa ñu ne la waaw nga ñëw ñu yéegal la ñu pare liggéey gis nga ganaar bala dugg ci kaf xam nga nu may def su dana dinaa wàññee ko dem li ma lay wax nak geussu ko waxuma la chaaxat dem ñëwaat ndank dugg ndank ganar bu duggé day wan gannaaw ci jakar jàkkaarloog buntu bi xamul luy japp ganar ngi ci biram deet da bëgg bu dara yu ngum tepp ci nga bu ne chop non day tok mu yag mu ni beurit kaf dara day gëstu rek su dara yënguwul nag mu doog a dugg ba ci biir nag tëdd jàkkaarloog bunt bi bu gisul lu xam def li mu xam. ganaar mel na dafa am connexion mais nit am yow amoo connexion moo tax waroon nga connecté wu yow ndaw si avant tout ah oui parce que it dama am oto dama am lii góor ñu mën a fen dafa bari góor ñu mën a fen nag ñoo xam dañ lay feena feena fen ba nga defee ne oto yaa ngi gaare parking waa ngi sa kanam di kàccir boole waat nag. waaw waat yu métti la ñuy waat te ittaxasoo ay maanum junnatan yàlla nee na bëri na koy waat daa bëgg nga gëm ko mais day fen day fen de bu waatee rek nga naa ah, dëgg la dëgg fekk du noonu kon donc avant dugg gi soxna si amal lu leer gëstul utal ku la gëstul leerlul ba mu leer nañ nga xam ki ndax kii góor piir la wala góoru yaay la góoru yaay du yor jabar yaay yor jabar dafa am góoru yaay waaw mu ngoog du yor jabar de yaaye may yor jabar su neexee yaay toog su neexul yaay mu ne la waccan parce que yaaye ma yor yaaye ma yor kon euh, ngaa jël ñu lay takkaloo ñaareel pour xeex sa aawo déedéet dangaa dajeeg yaay ju baaxul mais bu yaay xamee àdduna yor njaboot te xamul fu njabootam di mujj dana moytu ku toroxal doomu jàmbur su boobaa nag say wuy jur ñooy se say responsabilité ñoom itam gannaaw man ngaa tak keneen say am na fulla bu uloo la keneen man mi bàyyi ma am fulla woola ne la eh kii dama la ko mayoon lu xew dëkkaloo ko dundaloo ko wodduloo ko lu xew dégg naa takk nga jabar waaw kuy takk ñaar danga mën a yor ñaar yoral sa sama sama dom manoko ko yor wax ma ya jël xalé bi yalla neena na ku mën a takk a benn takkal soo ba sa mandu ak sa wërsëg meuna indi ñaar nga teyelenti kenn du loru ñaareelal so demee ba sa mandu sa wërsëg meuna am ñett ñetteelal so demee ba sa mandu sa tollale meuna am ñeenti ñentelal suñu wuri ne yow meuno tollale mandu wo fa wahidatan yemal ci benn jabar yemal ci benn jabar xam nga ay aaya yorul jabar tekk jabar naa ni yaayu ladina amano loolu ca nga ko yóbbu ca jàkka ja am naa suma wóolare dafa takk jabar ma ne ko yow loo ko yore mu ne ndaw si daf maa fekk ci conférence ak nopp ma ma ne ko aaya yor jabar lan mooy conférence wax kat kenn ko nopp jëf kat la ñuy nopp ma ne wax mooy lan xanaa jàngoo masaluhum ka masalil ximaar yàlla nee na am na ñoo xam ne seen ayu réew ñoo mbaama yem baat rek dañuy yooxu mais dara dara nekkul ci ñoom mu ne ko yow ngay takk jabar mun loo mu ne daf ma bëgg parce que nee na dama ko neex ni may waaraatee conférence ba daal ci la ma faaye wax ko président ba mu bëggoo takk ma ne ko hey boo ci duggee dootoo conférence ndax dangaa dugg ci loo mënul da ngay weeru ti ko weeru ñu bala mu sob beneen moromu saasam ni ko Iran dafa compliqué takkal ndaw sa xale bi bëgg mu takk ndaw sa laay laay ndaw si yëpp ñu nga tottooral xam nga tottooral torox ba tottooral fa la ñu ñaar ñëpp daara jëm yoroon tas na moom ci boppam addunaam tas na keroog bi ma seet see ne ma loo may digal ma ne ko la ma la doon digal wees na wax naa la ma ne ko bàyyil caaxaan lii du dem lan mooy loolu ay yorul jabar jom ngor diine mooy yor góor de am jom nangoo liggéey diine du métier politique du métier góor dee nangoo liggéey jabar kenn du ko yoral nit man jabar kenn yoralu ma ko déedéet yoral sëriñ bi di góor ni man di sama nawle di ma yar yar ma ci jom jom jooju ma war ci tibb yor sama jabar ñu ñu di ko yoral xanaa xamoo ne ku ñu yoral jabar amatoo turandoo yow ba ma fatoon sa doom ju ma jur sa bàppa laa koy tudde bu ñëwaatee di góor ma tuddee ko caméraman bu ñëwaatee ma tuddee say ay bu ñëw ma tuddee sœur bu ma bu ma fégalee nag bu ma euh, caat mu may mujjee am xam nga ku ma koy tuddee sa doom ndaw bi juddu bees mooy caat yambar góor bu bëggee am liberté day dundee ñaqam di moytu ñaq nawleem góor pour jabaram fonko day am com ki nga xàcc loxo duur jigéen déedéet da ngay tibb dépense dóor ko jigéen góor day man nangoo joxe loolu lu ñuy dumaa jigéen mais du ay talaata sallallahu alayhi wa sallam jigéen mosu ko xatal mosu ko xas mukk bañ na ko ba Aysa fii la daan tëdd ci kaw pooju Muhammad bu jàngale ba wàcc njege naa yonent bi di ko raay nii di raay bopp ba Aysa nelaw mu def nii tànkam tegal ko njëgënaay mu tëdd ci mu rocceeku ndànk toog ci bunt bi di garde bunt bi xale bum seen nga yuuxu mu ne daw leen ba fële seen yaayaaye sa day nelaw day noppal moo koy gardel boppam moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dem leen ba ndax mecc xel la yor jàngale kan mecc xel la te laaj ci mecc xel day laaj reposé pour nga nelaw boo nelawee sa yuur dal daan na ko boot daan na kursoog moom yooyu yëpp ci xam valeur yu jigéen la jigéen il faut nga xam valeur parce que yonent yeeg ñëpp jigéen a leen jur jigéen ay ëmb ñëpp te kenn du ko ëmb góor mën a ëmb réew moo dégg góor ëmb ne ne bu fa dugg waaw fi kaala jigéen la ëmb kuy musóoru jigéen moo ëmb boppam ëmb góor moo ëmb boppam wasin ko ëmb góor wasin ko te góor mënta ëmb jigéen mënta ëmb bopp yàlla dafa jël jigéen def ko trésor jigéen mooy trésor yàlla lu mu bëgg amal ci la koy amale lépp lu muy denc ci jigéen la koy denc wali yu yeeg xut bu yeeg yëpp ci jigéen la ñuy jóge kooku bu ko yàlla dénkee téel fonkal toppatool looluy dëkk. ah ñoo ko déggandoo kontaan nañu oustaz. Eh, maa leen gën a kontaan bu baax eh, yal nañ yàlla may ñu yeggali koor gi ci jàmm eh, kenn bañ a manqué yàlla dolli jàmm ci réew mi am nañ jàmm yal na ko yàlla yokk sutura am na yal na ko yàlla yokk xéewal yal na ko yàlla yokk jaamu yàlla it yal na nu ko yàlla yokkal te nangul ñu ko. yàlla nañ doon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg jaamu yàlla bu raxul dara yal nu yàlla uuf yal nu yàlla téye yal nu yàlla sàmm loolu rek am solo ku dul yàlla boo wéeroo ci moom danañ la xëy tàgge baa ñu xëy ko waaye yàlla kenn du ko tàgge man kaane yaabudu muhammadan fa inna muhammadan qad maata wa man kaane yaabudu laa fa inna laa xayun abadan muhammad day faatu mais yàlla du faatu ki dul dee nag ku yegu wéeru ci moom yal nañu yàlla uuf yàlla nañ mottali koor gi ñu ngi leen sant di leen gërëm di sant sama mbokk yi ne ci internet bi rek di commentaire rek commentaire leen bu baax aw leen góor jërëjëf